lakk gu métti xew ci Touba marché Ocass ci centre commercial Serfal Nar ñaari place yu doon jaay ay téléphone portable ñoo tàkk ba jeex bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñoo moom place bi ñi ngi bi ñuy ubbi place lakk gi tàmbali ñi nga xam ne nag ñoon la fa fekk amuñu leneen lu dul seen bët ngir seetaan gi la lakk. man damaa xëy suba suma copain bi nekk si place bi nii moo njëkk a xëy si léegi bu mu xëy mu woo ma téléphone nee ma place bi mu ngi lakk léegi moo jël kii ñëw bi ma ñëwee fekk sapeur nekk fii di kaw yi nga xam ne ñoo nekkee ci caserne sapeur pompier bu daaru ma naan bi ñu egsee itam fekk na seeni bagage yu bëri daal di tàkk ba jeex waaw sapeur moom teel nañu ñëw parce que ñoo fay lakk bi mais konoon day gën a yokk waaw ñoom teel nañ koy moo tax mu yem fii nii waaw. waaw yu bari lakk nañ. borom place bi nag jàpp ne jafe ci wàllu courant maanaam branchement yi na mu demee moo ko waral disjoncteur ba lakk ba xëm gannaaw loolu itam ma ngay joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne mooy kilifa yi nga xam ne ñoo jiite marché bi ndaxte jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel ci wàllu courant dafa jàpp ni am nañ ci wàll. ak fu muy mën di doon partout dans le pays dans le pays adduna bi. maam budul bu budul bu budul sax maanaam fii ñu nekk nii fu mu mën di doon nga xam ne électricité dafaa nekk toujours bu lakk amee électricité lañ koy mën a jiiñ. kenn ci kilifa yi di Cheikh Fall Naar mi nga xam ne moom moom centre bi daal di ñëw ngir wu ñi nga xam ni ñoo lakkale ci marché Ocass bu Touba. waaye itam gannaaw loolu itam mu daal di delloo seen xel di leen xamal ne nag lépp lu ñu mën ngir jàppale leen dinañu ko def.